jàppoon ni nag force vive du Sénégal li leen taxaw nu juddu moo di rek xeex lépp lu jëm ci troisième mandat ñu xam le rek ni loolee da di rek benn poñ ci li leen tax a jóg loole sax tey ji ñu réglé ko mu des nag xeex yu bari yi ñuy taxawal lu ci mel ni respect des libertés ñu rek dëgmal ab rassemblement boo xam ni dañu ko rek taxawal ngir rek ñu bàyyi ña ñu tuddee détenu politique. ñu ngi woote pour un grand rassemblement pacifique pour la libération de tous les détenus politiques. le vendredi 21 juillet prochain à la place de la nation di ci woowee Séné di ci woo Sénégalais yëpp du ñu nangooti nag ñuy bafouer suñuy droit ndax la liberté de manifestation pacifique déclarée c'est un droit constitutionnel. respect des libertés waaye tamit ñu taxawal ab processus électoral boo xam ne bu mucc ayib lay doon waaye tamit amal ay élections yoo xam ni ku bëgg a bokk rek di nga mën a bokk. boo ñëwee nga ne pour bokk ci élection yi. boo amee parrainage wu treize députés. baax na wala 120 représentants des exécutifs locaux mais daanaka moom am na groupe parlementaire mais élu yooyu ca même semaine ba nga xam ne ca la conclusion yi daanu ba ca tegu ñoom ñépp ñu ndiiraan dem ci palais de la république ne Macky Sall yaa ñu doy am na benn démocrate bi nga xam ne mën na compter ci ñoom waxatuma membre F24 pour dem wuuti ay parrainage des élus donc amul benn pertinence. F24 di xamle rek ni xelam dalul benn yoon ci li njiitu réew mi xamle rek ni du bokk ci élection yu 2024 yi li ko waral nag di rek ab projet de loi portant modification de l' article 87 bi nga xam ni bëggoon nañu ko dugal assemblée ci loolee sax Aminata Touré di rek félicité bu baax noonu nga xam ni noonu la ci député yi taxawee.